ngeen seen liggéey ni mu waree Ousmane suma doom la maa ko yar depuis mu am cinq laa jël yaayam dugal ko alxuraan muy jàng dugal ko école muy jàng ba mu ni ma ko utalee permis nii muy dawal xale bu yaru la xale bu ma déggal la billaahi suma wax mu tontu ma lu ma neex rek lay def suba ngoon ak lu neex yaayam li ko dal nag metti nañ trop mais yàlla mooy dogal papaam tamit mi nga xam ne moo ko jël ci gànnaawam yëkkati cër yëpp jox ma ko waaw ne ma loo def rek noonu la aw ma seen fay ak seen famille yëpp maa ngi leen sant di leen gërëm di ko ñaanal yàlla yàlla woyofal suuf si kawam yàlla barkeel njabootam gi mu fi wàcc. bi nga yëgee message accident bi lan a yëg sa que accident bi mu ñu fiy fekk maa ngi yaayam moo ñu naroon yóbbu Kolda la ñu demoon. maag yaayam moom moo ñu naroon yóbbu 5 du matin la xëy waroon nu yóbbu Liberté cinq pour ñu jël biis bi ndax moo ñu naroon yóbbu mais comme que dañ ko ci boole dañ ko ci boole looloo tax mu ne il faut que kon mu dem ba ñëw moom moo ñu waroon yóbbu maag yaayam ñu dem Kolda kii nu mu tudd ah Bignona yàlla def moom mu xëy 5 heures du matin dem ñun ñu xëy 7 heures du matin tase Kaolack mu wooñu ñu dem continuer. ba guddi bi nga xam ne ci suba ga la xëy gaañu minuit woo na yaayam woo ma foofu lan ñu ko tàggee maa ngi yaayam ñu jóge foofu ñëw Dakar deux heures du matin lañ mu nekk lu tiis mu nekk lu ñu bett parce que moom mooy taawu yaayam xam nangul ñu déggal ma jox ma cër maa ngi koy ñaanal yàlla yàlla woyofal suuf si kawam daam tamit leeral ñu ngi koy gërëm bu baax taxawuñu si boor yëpp la ñu taxawoo ñu ngi koy ñaanal yàlla naqar bi ñoo ko bokk waaw ñu ngi leen di gërëm di leen sant bàyyi na soxna bàyyi na ñetti doom waaw juuf Diouf Malick Diouf laa tudd waaye xam nga ni tey ñi nekk Touba seen xel mi ngi Ziguinchor ñi nekk Ziguinchor seen xel mu ngi Podor mi ngi Touba euh, yëg-yëg boobu nag moom euh, bokk na ci li ñu gën a marqué bokk na ci li ñu gën a marqué dem gi metti na mais boobu moom bokk na ci sentiment boo xam ne sentiment de tristesse la sentiment de mélancolie boo xam ne ñun ñu ngi koy euh, ñu ngi koy ñu ngi koy dund fi ñu toll nii. kaddu seede yi ah, nga la ñu waxoon rek waa ji joxoon xaalis ne ko demal tàggal ñu Mame Abdou waa ji ñëw ne ko sëriñ bi ginnaaw ba ma la nuyoo gars yi nañ yaa baax yaa baax yaa baax ba mu ñetti yoon mu génn gars yi ne ko delloo ñu suñu xaalis ndax dañ la waxoon nga tagg sëriñ bi mu ne sëriñ bi lu ma ko tagg-tagg mënu ma weesu lu dul yaa baax ndax yonent lu mu lu ñu ko mën a tagg itam ci yaa baax lay daanoo sëriñ wali lu ñu mën a wax ci moom dañ naan dafa baax rek waaw te mbaax moo tax yàlla indi ñu fi ndax yàlla dafa bëgg ñu tàggoog bon ndax àjjana lu bon dafa fa dugg lu ñaaw dafa dugg loolu moo tax euh, suñu borom indi ñu fii ci kaw suuf Ousmane amul ak kenn xaar ma yàlla ci kër gi dawalam tamit ñëpp ci dal la ko doon defe maanaam lawet gi nekkoon ci turandoom Seydina Ousmane moo nekkoon ci moom foo ko fekk mu ngi ree daan nañ àndandoo di football ndax ku bëggoon football la Euh, ba ci yoro ba ci sax match bi ñu doon joué match amical ñun ak Seneweb joué nañ deux fois de deux fois de suite yi ñu joué yëpp première match ba bi ñu defee match nul de 2 ñaari but yi ña ko dugal ñoom ñoo dem yoro moo marqué woon ak moom Ousmane mi te ñoom ñaari gis nga fi mu toll nii ñoom ñoo dem démb rek la veille bi affaire bi amee démb ci maate bi ñu ngi waroon football ak euh, waa gendarmerie nationale waaye gis nga ñun programme woon nañ ba def lépp waaye nii la ko yàlla dogalee te ñoom ñu ngi doon préparer pour jouer match boobu